asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di ziar bu baax a baax di rafetlu seen teewaay fii ne fii ci daayira Nahjul Xadaayil Xaaj ah xanaa di santaat bu baax rek ci seen teewaay di wax ni yéen a ngi foo xam ni yéen a ngi ci fi ñuy wax table bi lañ koy lañ koy dàkkantale fii nag lii sunu taxawaay mooy bëgg nañ ci kër sëriñ bi képp ku fi nekk heure boo ko yitteeloo muy lu tàng rek boo ñëwee nga fekk ko fi lu mel ni kafe lu mel ni ataaya lu mel ni meew waaye tamit dañ cee boole ay yeneen lu mel ni ay tàngal yu mel ni ay gerte pour tout tànk yi nga xam ni du ñu mën a jotee lu tàngali ñu mën leen koo séddale loolu moom mooy sunu taxawaay fii nii ci kër sëriñ bi dañ koy def 17 safar 18 safar ak 19 safar waaw. waaw ñun santaat nañ ci bu baax ndax liggéey bi dafa yomb liñ naan maanaam cant la ku ñëw rek da ngay cant. ki cant bu ñëwee fekk kuy cant rek liggéey bi day yom dañu bokk bëgg-bëgg motax amuñu ci benn problème amuñu ci benn problème ñu ngi bu baaxa baaxa baax amuñu benn problème xana sant leen rek di ñaanal Serigne murtada ibnu Serigne saliw mu yagg fi lool te and ak wër di wax ni yeen ñi nga xamni ni tamit yéen ñëw di def liggéey bi suñu borom euh, manam defal leen ay tawféex kon ni seen tur ni seen tur bi rek defal leen ay ngeen yëg seen bopp bu baax a baax yëg yokkute bu baax a baax bala ngeen fii ñëwaat balaa màggal geen ñëw ngeen am yokkute bu baax baax ci li ngeen di def ñu ngi leen di santaat bu baax. Mhm. waaw lune de moom xanaa mooy weer kon yàlla ngeen doon weer yàlla na ngeen doon weer ci barke Serigne Mourtada santaat nañ bu baax di di rafet lu baax seen teewaay di ñaan kóllëre gi nga xam ne moo dox seen digganteeg sëriñ bi sunu borom sàmmal leen ko. ba lépp lu ngeen xam da ngeen koy yóotu suñu borom defal leen ci lu kawe seen jor jaay na bi Moustapha barke Cheikh naa Cheikh Al Khadim santaat nañ bu baax a baax santaat nan bu baax a baax